wax dëgg fa yàlla di leen jox seen wàccuwaay yu baax a baax a baax di wax ne bëgg nañ ngeen di abonné nag euh, ci site bi di Sindia bi waaw ñu ngi ñaan daal ñëpp di ci abonné wax dëgg fa yàlla ba nga partagé tamit ndax loolu dana ci am solo te dina gën a yaatal liggéey bi ndax wax dëgg fa yàlla euh, am na solo am solo boo xamante ne nii. ñoo ngi ànd ak yéen ci liggéey bi di ci ànd ak suñu caméraman Mame Birame Gningue di ko ñaanal jàmm ak toofeex ndax it vidéo yi lépp liñ ci liggéey yëpp moom ci loxoom lay jaar moom moo koy liggéey di ko saytu ba mën koo jàllale ci mbokki taalibe kon nu ñu ngi koy jaajëfal di ko jox wàcc waayam bu baax di saare suñu wayjur yëpp di ñaan suñu borom yàggal seen taxawaay di ñaan réew mi suñu borom def ci jàmm tawat gi nga xamante ne moom la ñuy dégg réew mi yalla ci suñu borom def jamm te sotti ci ndox mu seddu bii ci dara jee Sëriñ Tuubaa ak xasaayit yi ba continuer wat nekkaat ci suñu yitte ñu ko ñaanal talibé yépp di ñaanal doomu adam yépp di ñaanal suñu mbokk yépp ñepp dal daal bàyyiwuñu kenn tay nak mbokk yi ñu ngi ñëwaat ci garab bi ngeen di gis muy garabu xottu bu garab garabu xottu bu teel yaakaar fan yee rek amna vidéo bu gatt bu ma ci defoon rek manam pour maye won ko ba taxon na ñu bari ñu ma ci doon laaj waye nak euh, mu nekk lo xamanteni waxtaanu ko sax man na wax ni yombul parce que ba ñu xoolee garab bi bokkut ak suñuy garab mais dañ koo gëstu ji xool ne garab bi am na njëriñ moo tax ñu indi ko fi muy garabu xottu butéel bi ñaata nañ koo gëstu gis njëriñam ak lim lim ñu mënal moo tax ñu jël ko saytu ko ba jël ko indi ko fi maanaam saxal ko ci suñu dëkk kon bokk na tey jii maanaam li nga xamante ni suñu garab la kon lañ noonu lañ ko mën a waxee waaye garab bi bari na njëriñ lool lool lool lool maa biram garab bi ku ko xam xam ko bu baax maanaam xol bi rek dana saafara lépp loo bëgg a saafara bu xottu butéel yi ma ma yor nii kii maam biram bëri na njëriñ njëriñ boo xamante ni mën na koo takk ci dara benn lii la kii gis nga képp koo xamante ni dafay amee problème xol mu koy sonal lu bëri na fexe ba wut xobu yi xobu xottu butéel yi koy jël ko jëfandikoo gëmal ne yow waxuma la dara waaye feebaru xol moom du la yem képp koo xamante ni nag dafa amee dafa dafay bañ a amee cancer na fexé di jël xob xob yi di ko jëfandikoo la nga ci wut nak moy ngëb rek wutal ci lo xamanteni dina mat ab ngëb te jël ko jaxase ko ak la nga xamanteni ni moy ndox baxal ko ba mu ñor nga xent ko di ci def lem di ko diko di ko naan wa li dal moy mbir mi képp ko xamanteni bañ na cancer dal ko may jël xob yi diko jëfëndiko nan lay def moy fexé bu ci ab ngëb soo ci tuddee ab nga baxal ko ba mu ñor maanaam nga fexe ba wut li nga xamante ne ni mooy lem du ko boole ak moom du ko naan parkaas boo ndekkee soo aña boo reere képp koy jëfandikoo gëmal ne feebaru moom doo ko am beneen bi mooy lu jëm ci wàllu xëtër bi doomu aadama xëtëram bu amee problème rek bëri na ay jafe-jafe ko mën a indi kii dafay dimbali nit ci xëtër xëtër bi bu fekkoon na noonu maanaam dafa amoon jafe-jafe toot gi ci nekkoon wala leneen kon kii ko dee jël dina gëm ne day tàqali ko moom képp koo xamante ne dafa amee problème yi loolu moom dafa doon lu efficace si loolu ku amee jafe-jafe nooyi nga xam te ne fu mu toll day appart fu mu toll na fexe di am xottu butéel yi di ko jëfandikoo di ko naan baax na lool ci wàllub nooyi day dimbali nit ki ba wax dëgg fa lépp nekkoo ci dënam daan fat da ko ciy dimbali ba mu mën a saafarawu beneen ba mooy buñ fexee ba am li nga xamante ni mooy xob yi dama wax ne lépp lu jëm ci feebaru yax xobu xottu butéel bi dama lay wax ne xobu xottu butéel buñ doon waxtaanee njëriñam fii la ñuy fanaan képp ku amee feebaru yax na gëm ne garab bi di xotubatal xob bi su ko day jëfandikoo day takaliko ak febar yax moom day takaliko mom li jëm ci ay xeeti rhumatisme ki dafa bok ci lu gaaw ci lu koy safara wa rhumatisme mom bu fekkee nit ki amé nako lay jël xob yi di ko jëfandikoo fu mu toll rek bu yàggee lépp luy feebaru yax day takaliko ak mom képp ko xamanteni ni yaxam day ruux di mett ci biir wala buy toge yax yi mel ni luy yëy ci biir na fexe ba wut li li su ko wuté man nako koo baxal après mu jël ndax ma tek ko fe wutaat li nga xamanteni moy persi mu dëbb ko wutaat ndox moomu boole ko ak moom mu jëfandikoo mu di ko jëfandikoo par kaas bu ndekkee bu añee bu reeree su ko dee jëfandikoo incha allahu taala day da tàqali ko la nga ni mooy feebaru yax loolu doon na ci loo xamante ni li ci efficace la képp koo xam ne yaramam nag day tàng lu bëri comme suñu xale yi yaram seen bi tàng lu na fexe wut lii su ko wutee lu booleel mooy day wut wut day fexe wut xobi ngeer mu boole ak xobi ngeer su ko jëlee ba boole ko ak da koy jël mu jëfandikoo ko li mu koy jëfandikoo wee mooy day fexe wut ci xob yi lu mat juróom-ñaari xob bu fekkee ne xale bu ndaw bu tuuti la day fexe wut juróom-ñaari xob yu toll nii muur muur ay juróom-ñaari xobu ngeer mu jëfandikoo amoon da koy boole ñoom ñaar mu tàngal ndox ba mu tàng mu sotti ko ci ëpp ko bàyyi ko ba mu sedd mu jël lem boole ko ak moom mu koy jëfandikoo xale bi su ko dee jël insha allah tàngooru yaram bi dina dañ bu fekkoon dafa amoon tamit soj bu ko doon sonal soj ba dina dañ fi mu sax jamono ji mën naa ne soj bi dafa lëmbee àddina ñu bëri dañuy xëy sax yaakaar naa yeewu gis nga soj yenn soj yi da ngay taw da ngay tiit ndax tawat bi fi am te loolu lépp maa ngi ci doon insisté euh, wax dëgg faala di bëgg nit ñi di ko bàyyi xel képp xoote ne amee na tawatu soj rek jarul sax muy dem hôpital na fexe bu xottu bu teel yi xob bi bu ko amee na ngeer mu boole ko ak moom mu koy jëfandikoo bee tamit waxoon nañ ci ne li mel ni limon képp ku jël boole ko ak lem bu ko jëfandikoo dina tàqali ko ak soj bu dee liiri la tamit xale yu ndaw yi nga xamante ne mënuñu seen bopp dara soj bi leen sonalee jaruñu leen di yóbbu hôpital ndax fi mu toll jamono moo xaw a am nu mu tënkoo su boobaa nag bu ñu wutee doomi limon yooyu dañuy fexe ba am li nga xamante ne mooy lem ñu boole ko ak moom xale bi su ko jëlee rek incha allah soj bi dina mën a wér ba fexe ba pare tamit laaj laaj tamit waxoon naa ci koroog euh, bëri na njëriñ xam naa dinañ defaat sa vidéo incha allah mais laaj moom képp ku jël du ko def ci ma ngay naan incha allah kenn du la mën a wàllu feebar wala bokk mënut def ci ndox ma ngay naan ngir xeeñaay moo lay xaw a déranger da ngay ba jël ko fajar ko fajar yi sew nga jël ko rek mak ko jël ndox nga naan loo xëy na mën na ko su boobaa di nga mën a ko moom mais dal li ma meuna xamal moy manam mooy euh li nga xamanteni moy mooy porte bouteille xas bi amna solo lol xas bi baxna ci trop li nga xamanteni moy febaru manam xol ko xamanteni xolam dal day tollu fu mu toll xol bi di tàng mi mi xol bi dal bi dee ki day mel ko xat fi mu nek ba bu nekkon ci bir ni sax day day mujjé da koy dalen déranger ba day mujjé dem fatu ji koku bu ko amé lol manam mu gisante ne mu ngi arrivé lu bari na fexe bu wut li nga xamanteni moy mooy bi xas bi soo ko wutee di ko jëfandikoo amut lu mun tafaj ci yow lépp lu nekkoon ci yow lu lay daan ganesi ci lu bokkut ak sa jëmmi yaram rek xamal ne moom xasu xottu butéel gaaw képp koo xamante ne du tàqali ko ak soj moom soj moom da ko dafa nekk feebaram na fexe ba wut xottu xob yi xobu xottu butéel yi ba am ko nan lay def mooy day fexe ba jël xob yi mu dem ba ci nga xamante ne garab bi nga xamante moom la ñuy wax saab-saab saab-saab am na ay doom doom yooyu boo ko takk bant bi nekk ci kaw bi nga xam te mooy couverture bi bant boobu nag moom lay jël su ko jëlee xolli ko moom lay boole ak lii mu dool ko ci gën mu dëbb ko su ko dëbbee ba mu mokk ni mu koy def mooy da koy day jël ab benn sër rek mu mu sàngoo ko daal di koy muuroo di ko noyyi su ko noyee nag feebar bi nekkoon ci moom lépp da koy génne ba mu set wecc wecc waaye nag su fa paree nag day jëlaat xob yooyu dem gas ba mu xóot mu suul ko du ci sa gaat ndax dara boo ko jox nit ki da nga leen wax lu leer bu ñu mën koo xam boo ko deferee ba sëgee maanaam lu feebar bu nekkoon ci yow dina ko génnee ba mu set wecc mu dem mu dem mu dem ci xob yi waaye nag boo ci sëggaatee nag dala delloowaat feebar bi moo tax boo ci sëggee après kenn du ci sëggaat yow it doo ci sëggaat da ngay dem gas ba mu xool nga suul ko bu beneen yoone bay defaraat nag da ngay jëlaat xob yi jëlaat xott boobu ma la wax ne ci saab-saab muy xas boobu xott xott bi nga xamante ne moo couverture doomu saab-saab bi moom ngay jël boo ko xaree nii xott bi ngay jël boole ko ak lii nga dugal ko ci gën nga dëbb ko soo ko dëbbee ba mu mokk nga sëgg ci di noyyi air bi boo ko noyyi air bi day génne jàngoro ba mu set wecc képp koo xam ne dafa amoon sax yaaf da koy dindi ba mu set wecc mais boo ko defee nag maanaam ba pare sëggaat ci nag dana delluwaat jàngoro ji kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ñu mën kon dañuy yemagum foofu rek wax dëgg fi ndax ku ne xam ne ne jamono ji moom daanaka xaw naa euh, am nu mel te it wax dëgg fi yàlla coono yi bëri na lool lool maam biram ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax wax dëgg fi yàlla fan yëpp moom i noppalut maay mu ci ay liggéey yoo xamante nii moom jotam sax mayu ko yi waaye tamit lépp rek ak jàppandal la ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ci daraje Sëriñ Tuubaa mbooloo mi jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf